Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. di leen bégee bu baax a baax maximum de partage gars ñu ñëw waxtaan a yéen ci mbiru Ousmane Sonko parce que ñëpp xam nañ ne fu mu nekk nii affaire bi moom c'est un complot <laughs> c'est un complot politique leer na nañ déglu ngeen Pape Alé Niang démb defe naa ne yéen ñëpp déglu ngeen ko dégg ngeen révélation yi mu def ci PV muy. procès verbaux yi audition yi nga xamante ni gendarmerie les enquêteurs ñu ngi ko doon def ak ñi nga xamante ñoom ñooy les concernés waaw donc kon leer na sénégalais yëpp tey ne lu ñëpp njortoon am na muy wàllu complot politique waaye man fu ma bëgg a commencer rek mooy dama bëgg wax ak justice sénégalaise bi la justice sénégalaise defe naa ne il est temps ngeen xoolaat seen bopp parce que lii dafa ñaaw yéen a ngi yàq deru Sénégal justice sénégalaise benn sénégalais amatut ci justice am yaakaar ko wax mu ne la justice bi amul indépendance maanaam Macky Sall lu ko neex moo neex justice bi loolu nag defe naa ne problème la tey xam ngeen ne séparation de pouvoir moo war a am Sénégal muy pouvoir exécutif législatif ak judiciaire bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi képp ku nekk président da ngay aakimoo yeneen pouvar yi teg ci sa loxo ñu lay defal li nga bëgg dañoo gis ne depuis que sàll Sall est accédé au pouvoir ku mu joteel ci wàllu politique boo demee justice dañ lay sacrifier waaye soo àndeek moom yow loo mënti def justice bi daf lay libérer bu fekkee tëj na la sax du la tëj lu yàgg gis nañ le cas de li gis nañ le cas de Aliou Sall dañ ko setal le cas de Mamour Diallo dañ ko setal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey dañ leen a sax épingle ci ay rapport justice bi waroon leen a oo procureur waroon ci auto-saisine defu ko parce que ñooñu ils sont avec Macky Sall yéen nag yéen a war a am seen fulla ak seen fayda xam ne seen der yàqu na te vous avez besoin de l'indépendance da ngeen a war a am indépendance ngeen xeexal ko seen bopp te gis nga usman Sonko ñun lu ñuy ànd ànd ak moom man Ousmane Sonko laa àndal du ma ko nëbb parce que dama am ci moom yaakaar waxuma nag ne moom mooy saafara problème mu sénégalais yi mais gis nga tey bu fal woon président man maay njëkk toog comme ni may defee live ni di ko defendre maay njëkk a toog ne li fi amoon dafa war a dëñ dinaa wax ne Ousmane Sonko na démissionné à la tête de son parti parce que mënoo nekk président de tous les sénégalais ba pare di far loolu dafa war a dëñ loolu problème la beneen bi mooy. warul conseil warul warul présider conseil supérieur de la magistrature di nommer ay magistrats ay présidents tribunaux ak ay procureurs war nañ def ay réformes xool ni ñuy jëlee benn procureur boo xam ne daf fiy nekkal askan wi comme suñ ne procureur de la république mu wuyoo touram nekk un vrai procureur de la république ku ànd ak président bi bu defee lu mu war na def mu ubbi ci enquête autosaisir ku ànd ak président bi même chose yemale sénégalais yépp yooyu yëpp dafa war a deñ majorité bi tamit assemblée nationale su fekkee Ousmane Sonko dafa falu tey am majorité assemblée nationale dinañ wax député yi ne warul leen a nekk député Ousmane Sonko mais da ngeen a war a nekk député du peuple maanaam il faut rupture am moo tax ñu ñuy xeexan ah. te Ousmane Sonko loolu la ñu gëmloo moo tax ñuy ànd ak moom président moom exécutif bi la jiite dafa war a gérer exécutif am mais mënuñoo jël doole yëpp tous les pouvoirs dénk ko benn nit mais bu yàggee dafay dof loolu moo dof loo Macky Sall le pouvoir rend fou Macky Sall loolu moo ko dofloo mais mën naa am Macky bi muy soog a ñëw il avait de très bonnes intentions il était de bonne fois mën naa am bi muy soog a ñëw parce que loolu la gëmloo loo yi parce que discours yu mu doon tenir moo tax ñu bëri woolu ko ay gouvernance sobre et vertueuse ay rupture ah ay xeex népotisme ah yooyu yëpp da ko doon da ko doon véhiculer quoi ci ay message am ba nit ñi woolu ko parce que moom victime loolu la victime injustice la mais bi mu ñëwee moo gën a bon sax ñi ko jiitu moo gën a yées ses prédécesseurs nekk la di jàpp nit ñi di tëj te loolu il faut que ça cesse justice sénégalaise am leen seen fulla ak seen fayda ngeen jéem a am seen indépendance bopp dem ngeen ba seen dëkk wóolootuñ leen ku am problème justice dang naan su demee àtte bi du jaar yoon rawatina nag mu nekk problème politique xoolaat leen seen bopp ngeen jéem a moom seen bopp parce que Macky Sall bi mu ñëwee ñi mu bëgg ñu defal ko Sall buloo ñëpp tey boo demee xool seen patrimoine dañoo am xaalis riche am alal tey jii patrimoine procureur tey boo demoon xool ko tey danga naan salaire am mënu ko kaa may ak président wu tribunaux yi ay cour d'appel ak ñoom Demba Kandji ak ay waa conseil constitutionnel ak ay waa cour suprême ñooñ ñëpp ku ci am problème tey ak Macky Sall am problème ak état boo demee da ngay daanu amul kenn koo xamante ni dafay am problème bu lay opposé ak le président Macky Sall nga dem di gagné mënul amul tey jii Ousmane Sonko bi ko Macky Sall dàqee dem na cour suprême te dàq boobu dafa arbitraire mais bu demee cour suprême dañuy confirmer Macky Sall jamais nga dégg cour suprême ne Macky Sall amul droit dàq la jamais loolu nag dafa war a dëñ ba pare président bu ñëw da nga war a xam ne yow président wu sénégalais yëpp nga nga yemale sénégalais yëpp. ba pare def sa bopp bi ne doo buur da ngay toog def ñaari mandat dem keneen ñëw mu jeex takk parce que tey li dal Sonko nii yëpp affaire yi troisième la affaire yi troisième mandat la loolu mooy enjeu bi Macky Sall dafa yàpp sénégalais yi parce que dafa toog di poser ay acte muy jàll muy poser ay acte muy jàll mu dem nag ba loolu jay ko mu bew naagu ni daal man comme sénégale yi daal dañoo passif waaye man tey maa am troisième mandat su ko defee ñi ko wër seytaane yi naan ko pourtant man nga ko am ba pare nag di ko ci tegal naan ko waaye sénégalais yi dañuy coow rek su leen waxee ne pour pourtant constitution bi man bi ma ñëwee dama ko dama ko xoolaat dama ko réviser te dama du wax ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ginnaaw bu ñu waxee ne le mandat présidentiel est de cinq ans bi gars yi dañ waaye ah yooyu judd ci dara ah sénégalais yi daal yow loo bëgg a def mën nga ko def dañuy coow ñaari fan après jeex na loolu lañ koy gëmloo dañoo war a xam ne nit nit rek la mais moom tamit war na nekk nit xool moroomu président yi mi fi jaaroon am doole di torture seen askan xañ leen jàmm fu ñu mujjee mu war a xalaat tamit am conscience ne nguur dafay jeex àdduna lum yàgg-yàgg loo mënti gis dafay jeex loolu c'est très important lii yëpp lu ko waral mooy affaire yi troisième mandat gis na ne Ousmane Sonko rek moo fi nekk comme opposant boo xam ne mën na ko sonal te nit ñi dañoo am espoir ci moom am yaakaar ci moom lii wane ne xale yi dañoo am yaakaar ci Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko dañ ko convoqué rek xale yi ñëw taal dëkk bi Casamance commencé tàkk diaspora baa ngi nii di manifester ngay gis gars yi dem ci consulat yi waa Italie rek instant bi ñu ngi manifester ci mbedd Italie léegi loolu nag mooy wan ne xale yi dañoo bëgg changement vrai changement parce que dañoo sonn moo tax Macky sàll dama lay lancer appel solennel yi nga def ci sa bopp bi génnee ko muy affaire yi troisième mandat bi da nga war a jàpp ne yow Sénégal dafa war a am jàmm te jàmm jooju yow yaa ko war a consolider te ëllëg da rendre compte te affaire yi nguur jaru ko gis na ñu la topp di la jay di la dugal ci ay bêtises yi di la tegloo dil Ousmane Sonko gii nii ah ñooñu nguur moo leen intéressé gëmuñ dara mais Macky Sall yow soo xalaatee dëgg di nga war a xam ne ñi la topp ñu bëri gëmuñ dara ñi la doon saaga démb PDS di la jaxase ak Ablaye Wade ñoom ñëpp tey ñoo ñëw entouré la. ñoo ñëw entouré la te ñoom seen pexe bu juboon doo nekk président de la république taxaw nañ fii nii def campagne de diabolisation contre la personne de Macky Sall. di yàq sa der di la diaboliser comme lu ñuy def Ousmane Sonko nii te terewul sénégalais yi fal nañ la loolu moo tax nga war a xam sa bopp est-ce que boo yorutoon nguur tey ñoon dinañ ñëw di ànd ak yow Idrissa Seck mu ànd ak yow nii tey nga jox ko conseil économique et social environnemental mais lu ngeen fi waxantewul yéen ñaar amut wax na leen ne la sa vision jam ñaajo la yam lu nekk wax ma la ko fi ay ñoom Omar Sarr ñii tey ñëw nga def leen ministre ay ñoom Amadou Sall mais ñooñ def jotee ngeen lu nekk Omar tëj nañ ko ci offense au chef de l' état maître Amadou Sall tëj nañ ko ci offense au chef de l' état mooy bi Macky Sall di soog a commencé ba am ak ab bañ ubbi procès Karim Wade bi xamal ne nit ñi daf ci am ñoo xam ne Sénégal intéressé wu leen prestige moo leen neex ak ay avantages yu am ci nguur gëmuñ nguur gëmuñ gëmuñ Sénégal nguur lañ gëm. bu ñu la dugalee nag ci ay erreur tey ba nga am départ boo xam ne départ bu bon lay nekk départ bu ñaaw nga génn par la petite porte su boobaa yow yaay payer les kase cassés benn bopp la kenn mënu kaa xar ñaar te am na yoo xam ne du wees yow nekk goo mag yooyu mais mën nga dem après ñëwaat présenté waat mais nañ may Ousmane Sonko jàmm Ousmane Sonko dafa wax benn wax bu am solo daf ne moom du moytu parce que. loolu dafa war a jeex ñu ne nañ nañ moytu président bi opposition yi opposant yi bu ñu sonalee président dañoo war di moytu parce que chaque jour dañ leen di tendre ay pièges mais lan moo tax opposant mënul nekk Sénégal di opposé wu ba pare am jàmm mais loolu war nañ ko mën a xeex mu dëñ nga xam ne président bu ñëw il doit être de bonne foi jàpp ne nous sommes dans dans une démocratie dafa war a am opposition opposant bi di opposé wu comme ni mu war a opposé woo bu gisee lu mu mu dénoncé ko di def rôle opposant ba ñu may ko jàmm mu am liberté di dem fu mu bëgg a dem tey jii Ousmane Sonko tey man am na benn analyse bu ma def sax ci salle de massage bu mu dem tey salle de massage boobu noonu li tax mu dem fa man ci sama analyse bopp dama jàpp ni dafa bëggoon a xool benn endroit boo xam ne du xalaat ne gars yi dinañ am accès foofu noonu maanaam benn endroit boo xam dafa xaw a banal pour mu dem fa moom di massé wu parce que ñu bëri ñu ngi wax ne waroon na dem seeti ji kinésithérapeute wala mu dem hôpital xam nga mais. am na ñoo xam ne tey ils sont en connivence avec les membres de l'État ñu bëri dañ koy xam tey ji piège bu gënoon a bon xañ na bu demoon hôpital mën na ko fa am piège bu gënoon a bon xañ na bu demoon ci benn cabinet kinésithérapeute mën na ko fa dal parce que sénégalais yi nañu waxante dëgg ñun ñu ëpp ci sénégalais ñun korom ñu dafa yomb dañoo gëm alal dañoo gëm àdduna te nguur gi dafa yore xaalis ba pare saay-saay nguur gu saay-saay lañ am tey jii am na ñu bëri tey ñoo xam ne boo leen fayee xaalis ñu defal la salle boulot ndaw si tey nga xamante ni moom moo moom salle de massage bi li buur dem buur buur TV ñu ngi koy remercier bu baax a baax parce moom def na tamit liggéey bu am solo moo wax loo ndaw si moo njëkk a wax loo ndaw si ndaw si xëñ na xamutoon ne affaire bi dina am ampleur bii nii mais su su gaa su ko su gaa yi xamoon na day wax xëñ na mën nañ ko teel a gis. ba réussir sax lu ñu bëggoon def parce que seytaane dafa bari doole te xaalis dafa seytaane mais comme njëkk na wax ba dégg boppam ci réseaux sociaux yi bi tasaaroo mënatu la dellu ginnaaw mënatu la dellu ginnaaw donc kon affaire bi du début à la fin ñëpp xam nañ nu mu demee scénario la te scénario bi setul jaarul yoon parce que des fois da ngay yéene nit lu bon parce que bu ñu criminaliser euh, viol yàggul. xam naa dañu xam ne ndeysaan criminalisé nañu viole ñu ne xaaral ñu profité gaaw pour toroxal Ousmane Sonko maanaam gëmloo Sénégalais yi ne leen Ousmane Sonko li mu leen di gëmloo du dëgg dafay wan ne nit ku jubla la nit ku jullite la nit ku bon la ku bon la baaxul loolu lañ bëgg a def ci bopp Sénégalais mais bëgg jigéen taxul sax nit bon viole kañ moo baaxul viole moom duñ ko cautionné mais loo mënti nekk tey ci Sénégal nga nekk président wala nga nekk ministre mais am nga sa vie privée boo xam ne sa diggante ak yàlla la mais loolu ñun concerné wuñu tey ji Ousmane Sonko bu amoon jeegam boo xam dafay dem di fa gérer ji wala mu am ay gëlam partout mais c'est sa vie privée xanaa kenn du wax ne constitution bi day tere président wala benn koo xam ne dafay prétendre pour jiite réew mi di am gel constitution bi xanaa aayewul lool te bala ngaa takk jabar di nga am gel parce que góor gu nekk su fekkee jullit nga am nga droit à quatre femmes yàlla de moo ñu ko wax fankihu ma taaba lakum min an nisa masna wa sulaasa wa rubaa in xiftum an laa fa waahida <laughs> takk leen ba ñeenti jabar su fekkee ne da ngeen ragal ngeen yam ci benn mais xanaa bala ngaa takk jabar di ko labat Ousmane Sonko am na droit dem labati mais loolu c'est sa vie privée Ousmane Sonko ibaadu la Ousmane Sonko rebelle la Ousmane Sonko joolaa la Ousmane Sonko nangam la loolu ñun daf ñoo intéressé wul xam nga lan moo ñu intéressé programme bi nga xamante ni moom la Ousmane ko indi te baatu rebelle boobu sax ñu dugg fa loolu du dëgg loolu pour yàq dara rek pour jaxase ko ak sénégalais mais moom ñun <laughs> ñaanuñu yàlla jël réew mi di ko jox rebelle ngeen baal ma ci ci ci kàddu ci li ma ci boole rebelle mais dama leen di wax ne nit ñi dañ leen a war a bàyyi ñu dund seen dund am seen vie privée ba pare opposant war na mën a nekk Sénégal di dund comme ni mu bëgg a dundee ba pare am jàmm te kenn di ko tendre ay pièges ñu bàyyi ko mu mu nekk ci jàmm bu bëggee dem plage dem plage ànd ak te Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne yàgg na sax bëgg liberté parce que euh, salon de massage bi lu mu nekk affaire yi mœurs rek moo tax affaire bi am ampleur bi mais Ousmane Sonko génnee nañ ko fi benn jour mu dem géej di entraîner mook ay doomam ak ay ay ay njabootam en direct nii plage mais opposant war na mën a nekk ci dëkk xam nga ànd ak njabootam dem ci benn restaurant wala bu bëggee dem may ga sax xam nga dafa am yoo xam dafa bokk ci Sénégal bu bëggee dem may ga dem ci may Mayga bu bëggee dem dibiteri dem dibiteri ah su bëggee fubali ànd ak ay xaritam dem fubali bu bëggee def divertissement dem divertiru ji mais loolu xanaa loi bi aayewu ko moom kañ na bañ a def luy loi bi di tere rek parce que tamit dafa war a joxe le bon exemple parce que dafay prétendre pour jiite un pays te loolu du caaxaan su fekkoon ne ñu ngi lëj mbët lépp luy nit ñi di def wallahi li français di wax ne kii cherche trouve ku noonu am na ñu bëri dinañ leen daaneel gis nga sutura dafa baax sutura dafa baax gis nga yàlla dafa xam ne l'homme et naturellement infidèle moo tax sax mu digal ñu ñeenti jabar yooyu noonu l'homme est naturellement infidèle te gis nga in inna kayda kunna azim la wax pexe jigéen dafa màgg kenn moo mën a toog fëgg sa loxo ci kaamil na mën nga mucc ci jigéen ci pexe jigéen inna kayda kunna azim loolu la yàlla wax mooy bi Zuleyxa doon sàkku doon doon sàkku euh, Yusufa Yusufa bañ ki nga xam ne moom moo def wa shahida shahidun min ahliha kooku moom fa foofu la mujjee def na ne inna kaydakunna azim avant muy àgg foofu noonu nu mu demee ndaw si Yusufa dafa ñëw ci kër gi ma profité rek jox leen ay exemple wane ne jigéen dafa bëri pexe parce que yàlla lu mu wax ci alxuraan rek dëgg la maa farat naa fi kitaab min shay'in yàlla amul dara lu mu bàyyi ci alxuraan nañu ci ndaw si bi muy sàkku Yusufa Yusufa dafa bañ innahu rabbi ahsana maswaay loolu la ko yusufa wax bi mu koy sàkku def na ko rabbi boobu noonu du firi sax yàlla quoi parce que d'habitude bu waxee rabbi gars yi dañuy foog ne yàlla la rabbi boobu noonu njaatige lay firi sama patron maanaam ki ma indi ci kër gi ahsana maswaay dafa rafetal sama nekkin ci biir kër gi parce que dañ ko dañ ma ñëw dañoo ñëw def ma jaam moom mu jël ma def ma comme doomam moo tax bi koy ndax di sàkku yusufa def na ko innahu rabbi ahsana maswaay mais bu Yusufa bañee bay daw wastabaxal baab wa qaddat xamisuhu xudda min dubirin wa alfaya wa alfaya sayidaha ladal baab Yusufa bi muy daw di ñuy njëkkalante bunt ba dañoo dajeeg sayidaha ladal baab ci bunt ba sayidaha mooy seen sang ba jëkkëru ndaw si xaalat ma jazaau man araada bi ahlika suu an illa an yusjana aw azabun alim rek ndaw si gaaw profité ne ko ah yow sama sang bi naka ngay firee koo xam ne dafay ñëw di jéem a sàkku sa jabar kii daal dañ ko war a emprisonné rek wala ñu wala ñu mbugal ko mbugal yu métti xam nga déjà rek commencé na moom di àtte àtte bi rek gars yi ne eh tey leen jigéen ñi dañoo bari pexe de nañ def ndànk mais lan lañ wax wa shahida shahidun min ahliha koo xam ne ma nga ca biir kër ga moom moo seede te pourtant boobu organisation yi am ci àdduna bi yëpp amut ay affaire dem def concours magistrature dugg ENA jàng génn di àtte xam droit yeeg loi yeeg yooyu mais waa ji àtte bi mu àtte ba léegi nii ci jamono jii dafa dafa yenu dafa yenu maanaa xam nga la lan la waa ji wax wa shahida shahidun min ahliha daf ne in kaana xamisuhu xudda min xubulin fa sadaqat wa huwa min alkaasibin wa in kaana xamisuhu xudda min duburin fa kazabat wa huwa min as-saadiqin falammaa ra'aa xamiisuhu xudda min duburin xaala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim mais loolu la wax leer def ne xool leen mbubu yusufa bi ndax ci kanam la xotteekoo su fekkee dafa xotteekoo ci kanam xam leen ne yusufa moo doon non xool leen mbubu ndaw si waaw waaw waaw mbubu mbubu yusufa bi autant ndax dafa xotteekoo ci kanam su xotteekoo ci kanam yusufa moo doon sàkku ndaw si ndaw si bañ jàpp mbubu mi mu xottee ko nii su fekkee ne nag ndaw si moo doon sàkk yusufa yusufa da doon daw ndaw si jàpp mbubu mi ci gannaaw mu xottee su fekkee mbubu mi ci gannaaw la xottee su fekkee ne mbubu mi ci kanam la ndaw si moo am dëgg yusufa mooy fen su fekkee ne mbubu mi ci gannaaw la xottee yusufa moo am dëgg ndaw si mooy fen léegi nag moo tax mu ne fala maara a xamisu xudda min dubalin xaala innahu min kaydi kunna inna kaydi kunna azim xaala mu wax innahu min kaydi kunna inna kunna inna inna kaydi kunna azim lii ci pexe jigéen la bokk seen pexe dafa màgg léegi nag jigéen bii di aji saar moom sax ay pexem ñëpp xam nañ ne dafa màgg parce que bi xew-xew bi amee ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jege say proches gars yi dem nañ def ay enquête foofu mais lan lañ leen wax lu ñu leen njëkk a wax mooy Adji Sarr manipula manipulatrice la ba pare c'est une menteuse fenkat la fenkat moom elle est capable de tout faire gis nga fenkat ku lu tax l'islam wax ne fen dafa dafa xaraam dafa bon mooy ne gis nga fenkat mën naa def lu ne fen moo gën a dangereux fen mën na indi guerre ci réew man na taal dëkk moo tax ku ku ñu ne fenkat nga yow da nga dangereux man dama ragal fenkat man nit bu ma fenee benn yoon rek dootuma am ak si yow confiance danga may traumatiser mënatoo ma wax lu ma gëm même li nga may wax bu dee dëgg la du ma ko gëm am na sax benn genre léeb bu gaay di léeb bu am xorom sax ci loolu nee dafa am benn waay boo xam ne masul wax dëgg foo ko fekk dafay fen di fen di fen di fen di fen léegi benn jour nag mu ñëw bi mu ñëwee rek ne gaay tey daal de je suis sérieux quoi dama bëggoon waxtaan ak yéen gars yi ne waa lan ngay waxtaan ak ñun mu ne non dama dama bëggoon daal ñu waxtaan je suis sérieux tey dafa am lu ma leen bëggoon wax mu dajale ñëpp seen waa kër yëpp toog bu ñu toogee mu ne dafa leen dafa am lu ma leen bëggoon wax gars yi ne acca mu ne dama leen bëggoon wax ne tey damaa bëgg a wax dëgg tey gars yi ne wax dëgg yow fen rek lañ la xamee woon yow bi ñu la xamee ba léegi fen rek mu ne waa tey nag moom je suis sérieux dama leen bëggoon wax loo xam ne dëgg la dama bëgg ngeen gëm ma yi ne ko acca ñu ngi lay déglu mu ne masumaa wax dëgg gars yi na ko ah loolu de dëgg la <laughs> jour boobu lay soog a wax dëgg moom dafa dafa confirmer affirmer ne moom masul wax dëgg moo tax ñu ne leen fenkat dafa dangereux te Adji li tax ñëpp xam ne Adji Sarr mii lu muy def du dëgg te complot la mooy ay mbokkam ñoo sedd na fenkat la ba pare te jubul am na benn journaliste boo xamante ni ñu ngi koy wax Ayoba nekkoon na Walfadjri doon fa liggéeyee léegi mu ngi nekk ci benn presse en ligne bu tudd xawma Afrique nan Moustapha Diop bu Walfadjri daf ko invité mu ne moom dem na ci village bi xale bi jógee côté Diamniadio dafa am nag ñaari Diamniadio am na Diamniadio bu nekk à l'entrée de ak Diamniadio bu nekk ci île du salom yi les îles du jam Diamniadio ak Djirnda sorewuñ les îles du Saloum léegi nag xale bi ci beneen dëkk bu tuddu Maya la la dëkk bu dend ak Diamniadio ak Djirnda journaliste bi moom bi yeneen journaliste yi nekkee fii di jéem a diaboliser Ousmane Sonko di ko bëgg a taqal yeneen journaliste yu bon yi nga xamante ni dañ doon profité ci occasion pour yàqal Ousmane Sonko dinaa ñëw ci ñoom ñoom bi ñuy def loolu moom dafa jóg en tant que professionnel moom dem ubbi enquête defe ji enquête moom ci xale bi mais bi mu demee ci dëkk ba nee na xale bi amul der bu set xale bi deram setut deram rafetut ay propre mbokkam ñoo ne xale bi ku ñàkk euh, kilifa la day taxawaalu jàng na ba troisième bàyyi da doon teg ay diil ay góor di lekk seen xaalis da doon yàq ay deru copinam naan ay da ñoom euh, dañoo biir di ko yàq di fen maanaam fenkat la manipulatrice la te jubul elle n'est de bon mœurs timide te yow nit naka lañ lay violer yow ba pare gisuñ sa tante bu taxaw gisuñ sa nijaay bu taxaw gisuñ sa grand frère gisuñ sa cousin gisuñ benn membre de ta famille aucun membre de ta famille ñëwul pour assister la te yow tamit mënuñ laa gis ñu ngi la denc ñan ñoo la denc xanaa ñu la doon tegloo deal bi ñoo la denc kon nit kañ war nga mën a suñ la violé su fekkee dëgg la mais da ngay jógee koo seen kër di dama ko ñëw di jaabante dem gendarmerie dem ah dem seen kër di dem ak a ñëw seen waa kër ñëw taxaw seen nijaay ñu interviewé ko mu wax ne waaw suñu doom victime la waa ji daf ko daf ko agressé daf ko violé daf ko daf ko utal fetal na da ko naa la rey mais mbokkam yi sax ñoom ànduñ ci ñoom mbokkam sax ñoom xam nañ ne kii fenkat la lépp lu mu def rek ay deal la ay plan la parce que loolu lañ ko xamee moo tax gis nga gars yi seen complot bi dafa des xam nga lu tax seen complot bi des parce que dañoo soxor dañoo yéene Ousmane sunk lu bon yéene ko kaso yéene ko lu ñaaw ba affaire bi am ay failles lu ñuy wax ni un crime n'est jamais parfait yëfu bandi banditisme du mat du parfait te xam naa ne ndeysaan xale bi ñu ciy tudd noonu di Ahmed Sidi Sarr dafa nekk koo xam ne bon fanatique la bokk ci système bi yeneen ko gis photo mi mu ngi nekk ci campagne bi di campagneel Macky Sall xam naa dinañ mos dara parce que Sénégal moom xam nga gars yi moom soo seen teraanga kenn du leen ko xañ fi ngay mën a mosee dara rek. toujours yow moom doo bëgg kenn yàqal la ko xale boobu tey ku ko laajoon Ahmed Sarr boobu na ko ndax Macky na def troisième mandat ndax mu continuer moom di bénéficier wu di am ay weccetam moom danaan waaw na Macky def troisième mandat léegi nag xëj na moom dafa xam dafa am des rapports ak euh, aji Sarr léegi nag bi mu dégganteeg Adji Sarr comme Adji Sarr xàmmee na Ousmane Sonko Adji Sarr ne ko mais man maay maay maase président Ousmane Sonko taay maay buzz maay ak rek. comme waa ji moom APR la bokk mais day exploiter occasion bi ne Ousmane lan mu ne ko Ousmane Sonko maa ngay maase rek mu tegal ko dil ne ko nañ ko teg dil léegi moom mu ngi ciy séntu ne xëy na sax autorité yu mag a mag a mag yi mën naa am ñoom yëguñ ko sax mais xëy na moom moo bëggoon def sale boulot boobu pour tendre piège Ousmane Sonko affaire bi réussir après gars yi yëg ko waa ba récompenser ko ne ko boy bi Sidi Sarr moo éliminé Ousmane Sonko quoi félicité ko jox ko xaalis may ne mën nañ ko may sax kër. dafal ko ay récompense xëy na loolu la ci bëggoon mais seen deal bi moo setut xam nga tey dafa am ñoo xam ne yàlla da leen a suturaal gis nga nit ki su fekkee yow tu es de bonne foi di dox ci lu baax di ko wax yow nit ñi di la xeex parce que yow da am ay ambition yu baax parce que da ngay weer seen jëf yu bon yi ñuy def seen càcc geeg seen mal gouvernance bi moom ngay dénoncer mais doo leen arranger loolu rek. mooy délit bi Ousmane Sonko def loolu maanaam délit boo xam ne délit Ousmane Sonko ci ñoom mooy Ousmane Sonko dafa jub day prôné pour la bonne gouvernance pour la transparence ressources minières yu Sénégal ak ressources naturelles yi fu muy dugg ak contrat yi ñu signé da koy lijjanti sàcc yi nga xam dañuy sàcc ñoom Mamour Diallo sàcc ay 94 milliards ay ñoom Alioune Sall sàcc ay mille milliards mu leen di dénoncé ñoom arrangé wu leen parce que dañoo bëgg a toog ci nguur gi. enrichir ñoom nguur jàppewuñ wuñ ko sacerdoce mais luñ jàppee nguur mooy ñëw pour tekki bañ leen ko ba boo faloo sax dañ naan sa yaay dafa liggéey lan ban liggéey sa yaay lan la liggéey loolu ay waxu caaxaan la suñu expression yooyu noonu dafa war a jeex ci ñun léegi nag Sidi Sarr nag ne xaaral ma exploité piste bii nii parce que xamante naa aji te aji nee na mooy maase président Sonko loolu la rek noonu la affaire bi demee. deal ba nag setut ba pare ñu ñëw ci euh, ci plainte bi Adji Sarr nañ niveau troisième la am te xam nañ Sénégal da gis koo xam ne day dem ba université sax mais bind moo gën a jafe ci français bind xam naa si yeneen langue yi muy arabe ak anglais ak yëpp gis nga bind ak wax du benn wax français nii mën na yomb di gis ku dégg français mën a wax français mais am na benn yenn baat yoo xam ne bu ko bindee def ci faute bind dafa am yoon te ki bind plainte bi ñu ngi ciy tudd benn avocat boo xamante ni jëkkëram ci nguur gi la nekk te ni mu bindee ku ko liir xam droit di nga xam ne kii c'est une femme de droit wala c'est un homme de droit xam na yoon ba wax lan moo mën a fekk sax nit ki koo xam ne dangaa violé yooyu yëpp tey dina feeñ donc yéene néeg la boroom moo ci fanaan nañ nangu li yàlla dogal Ousmane Sonko ni ko yàlla def nañ ko nangu man de man am personne amul benn doomi aadama bu may déranger yàlla mayul nit lu tax mu ma tëdd di teree mu may teree nelaw lu yàlla may doomi aadama bi dama koy nangu li ma yàlla may ma xam ne lii la ma yàlla may ma d'accord Ousmane Sonko yàlla may na ko nañ nangu na yàlla may na ko jeex na yàlla mooy xool ku ko neex mu def ci moom lu ko neex qulillahuma malikal mulk tu'til mulka man tasha yàlla mooy xool ku ko neex mu def ci yow lu ko neex mais nañ nangu nañ accepter Ousmane Sonko xam ne mooy le leader de l'opposition xam ne xale yi dañ kaa bëgg dafa révolutionner la scène politique sénégalaise ñu d'accord li mu jaral nit ñi ba tey ci convocation rek ñu ñëw di taal dëkk bi ba ñëpp di génn di manifester wu mais loolu yombul am na ñu nekk ci opposition ay ati ati at te amuñ loolu nañ accepté Macky Sall ak ñum àndal nañ nangu dogalu yàlla ñu bàyyi Ousmane Sonko mu opposé ñu bañ fi nekk di ko tendre ay pièges pour yàqal ko àddunaam bu ñu demee ba 2024 Macky Sall amul droit présenté wu nañ ut seen candidat ñoom ñu boole leen moo Ousmane Sonko ci géew bi ñu bëree ku man sa morom duma ñu organiser des élections libres et transparentes mu jeex Sénégal ñoo ko moom kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ci bokk yem Sénégal démocratie am avancé état de droit bi avancé loolu suñ ndam la ñëpp toog naan Sénégal dafa am démocratie Sénégal dafay am ay alternance mais loolu dafa neex te loolu Macky sàll tey bokk na ci ñi nga xamante nii ñoom ñoo war a doxal loolu mooy ne mu bañ a yee fitna bañ a yee fitna mooy mbiru troisième mandat bi koy gars di dugal naa fekk yi seytaane yi na taxaw bañal ko boppam jabaram tamit gis na jigéen dafa jege jëkkëram te xam nañ proximité bi am diggante Marème Faye ak Macky Sall Marème Faye ku yàgg a jàppale jëkkëram la borom këram bu campagne jotee sax day jël affaire yu première dame sànni fële sol t-shirtam ak jiinam wane modeste yore sifleem di sifle yàgg na jàppale jëkkëram ak ay mbokkam nañ toog mbokki Macky sàll yi ñu wax ak moom ne ko Macky gor ca wax ja yàlla daf ne wa awfu bil ahda innal ahda kaana mas'uula kóllëre mooy li nga waxaaleeg nit ñi ñu bind ko ci constitution bi mu leer ñaari mandat la na ko ko sëriñ si wax wax ko dëgg xalif généraux yi même président de l' assemblée nationale Moustapha Niass ak âge bi mu am ah pour Macky Sall mere ko sax war na ko ko jaral mu wax ko nag moom amatul lu muy daw bay daanu Moustapha Niass yow koo xam ne depuis temps yi yaa ngi ci nguur nekk directeur cabinet Senghor ah tu as occupé pas mal de postes ci gouvernement ministre des affaires étrangères premier ministre ñaari yoon temps yi Abdou Diouf 83 nekkoon na premier ministre Abdoulaye Wade ñëwaat 2000 mu nekkaat premier ministre 17 17 ans après. ah façon teraanga bu nekk am nga ko yàgg nga am ay flèche motards yi di la escorter nga am gyrophare ah tukki ci àdduna bi hôtel bu nekk tëdd nga fa teraanga àdduna bu nekk nguur jox na la ko instant bi am nga quatre-vingt et quelques années yaa ngi nekk assemblée nationale tey jii waroon nga nekk régulateur nekk médiateur lu war a jëmale réew mi kanam ak lu war a indi jàmm ci réew mi nga ciy dox soo gisee ne mag Sall mu ngi def ay erreur yu mën a taal réew mi nga oo ko nga conseillé ko même levée immunité parlementaire bi tey mënoon nañ ko bañ ñoom ñoom député yi pour jàmmi réew mi ne ah lii daal nekkut lu leer affaire yooyu tëb rek ne diw daf maa violé voilà ñun daal Ousmane Sonko jarul ñuy lever immunité parlementaire nañ ko bàyyi ba mandaayam jeex quoi mais loolu sag la pour Sénégal titre la pour Sénégal ñoom si seen bopp ñoom waa APR yeeg waa Benno Bokk Yaakaar yi dañuy daw sax plateau télévision yi plateau télévision yëpp dañ koy daw parce que xam nga lu tax ñu koy daw parce que amuñ argument xam nañ ne affaire bi deal la te deal bi dafa salte te setut léegi nag fu may ñëw mooy ci journaliste yi foofu laay jeexale journaliste yi am na ci ñoo xamante nii man xawma c'est des corrompus xaw ma dañoo contre Ousmane Sonko en personne ndax Ousmane Sonko succès bi mu am lañ ko iñaane xaw ma daal nu demee noonu mais tey bi plant bi plainte bi dañ ko def mardi ci guddi mercredi foog naa ñoom ñu xëy rek les ko jàllale ko kan moo leen jox plainte kon xañ na kon affaire bi dañ ko planifier bi xale bi ñëwee jël si euh, jël si Adji Sarr avocat bi bindal leen plainte ba mën naa am sax plainte bi bind nañ ko avant ñuy jël si Adji Sarr ak yooyu yëpp préparé nañ ko teg. après xam naa dañoo jékki-jékki rek après ne léegi nag comme ñu ngi yóbbu plainte bi nañu owaale benn journaliste bu nekk les échos xëy na mën naa am si diir ba la bokk ne ko voilà affaire bi mat na léegi acca suba boo xëyee rek dóoral affaire bi bomb bi explosé su ko defee sénégalais yépp xam ne waa jii nii ku bon la day day jub-jublu te moo gën a bon ñëpp am na benn chroniqueur foog naa il n'est pas journaliste Pape Makhtar dégg naa sax bind na livre xaw ma éternel xaw ma lan éternel indigné xaw ma lan waa chronique de l' éternel indigné xaw ma d'un éternel indigné Pape dafay dafay def chronique ci euh, Ndumbelaan ak journal commenté bi bu bu Sen TV bi mais booy boobu moom dafa foog ne moom moo ëpp nit ñi xam-xam wala il détient le monopole du savoir quoi moom il est radical il tire sur tout ce moom moom waxuma ne da war a faral Ousmane Sonko de waxuma loolu. ñun Ousmane man mi faral Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko nee naa leen bu nekkoon président ci yu njëkkal dal ci kawam man ci laay bokk bu déconné te rupture bu ñu soxla daf koy def wala ñu continuer di dal ci kawam comme ni ñuy dalee ci kaw Macky Sall mooy yi ma waxoon sànq ma préciser loolu. léegi moom bi affaire bi commencé ba léegi dafay chargé Ousmane Sonko quoi nee na lu tax Ousmane Sonko di dem ci ay salon de beauté mais yow yaay kan yow pas Makhtar yow tu te kii bay wax Ousmane Sonko war a ak fu mu war a dem tu te prends pour kii yow. mais mayel li ñi jàmm ëppoo fi xam-xam kenn dàqoo fee analyser kenn gis nga man mii dàqoo ma analyser tey xëy na da am opportunité toog ci télé foofu nga toog su ma fa toogoon mën naa def analyse yu gën a pertinente yow say ay analyse parce que borom xel nga borom xel lañ ëppoo leen fi xel kenn mais da ngeen di toog nekk chroniqueur gars yi ne da ngaa ñeme dëgg ngeen foog ne yéen vous vous croyez tout permis quoi yow yaay kan bay wax Ousmane Sonko fu muy dem ak fu mu dul bi. mu bëgg a jël Ousmane Sonko def ko responsable lu ëmmat yi amoon ak oto yi ñu doon calciné mu ne Ousmane Sonko. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.